qualité artistique. Oui, qualité artistique parce que man par exemple man je te dis personnellement bon pourquoi par exemple j'essaie de travailler sur ma qualité artistique moi, je veux que ma peut-être héritage moo fi quelque chose qui peut que euh, j'aimerais bien Moi, je veux que 30 ans 50 ans après que les gens puissent continuer à pouvoir écouter écouter ah, musique. voilà quoi très bien mais moi, bon personnellement au fait au fond au fait sama de. mais beneen beneen côté bi moi au fait vu du ma intéressé parce que pourquoi vu du ma intéressé mooy au fait je je pense beaucoup plus au business dafa mel comme côté beat xam nga boo xoolee bon par exemple yenn artiste yu bëri bon par exemple Sénégal quand je fais partie des beatmakers yi nga xamante ni sur les rap galsen au fait du ma kii non yooyu noonu nu mu koy bon si si siw si oui quoi entre guillemets quoi mais pourtant entre beatmakers au fait moi je fais partie au fait des beatmakers yi nga xam ñooy gën a lekk Sénégal c'est parce que je je sais comment faire mon business donc parce que keroog de maa wax ak benn mbir mi affaire yooyu non bu may bu ñuy waxtaan bu dugg ci affaire yooyu noonu ma ne man dès le début j'ai choisi une chose parce que j'avais vu que ni soit da ngay tu joues avec la célébrité wala tu joues avec j'ai des factures à payer business beeg yooyu non ma man je préfère ne pas être célèbre et pouvoir payer mes factures waaw et nourrir ma famille affaire yooyu non parce que Sénégal bo xolé Sénégal la xamoo len nak mo la ben affaire nak lu gën dé <laughs> Sénégal la plupart au fait des sons yi nga xam ne moo si mais beatmaker bi da koy may waa ji. il sort pas quoi. mais du ko jaay sax du ko jaay sax artiste bi da koy may. mais quoi c'est intéressant ça tu fais ton beat tu prends des heures de travail. peut être aussi genre artiste bi mën nga ko jox beat bi. léegi bu hmm. ko génnee mu beat prod bàyyi diw mu crédité la après dina ubbi. mais beaucoup d'artistes crédit même non seulement ils créditent même pas ils pas leur son au niveau. de la SODAV donc voilà quoi cest yow di nga ko def même bu même la crédité ñu ne diw moo defar beat bi. mais diw moo defar biir bi après yow weer bu dee yow amoo loo fayee sa néeg. Ah, mais man je trouve man je trouve que c' est pas intéressant man c'est-à-dire je préfère tëggal benn biir benn gaañ bu dëkk Tamba bi nga xam te ne siiw siiwul wala benn gaañ bu kii wax affaire yu noonu wala benn booy bu nekk Thiès bi nga xam siiwul mu fay ma par exemple benn cinquante mille léegi cinquante mille que ma tëggal benn artiste bu mag sous prétexte que dañuy bind sama tur et je je reçois rien du tout te boo xoolee Sénégal droit par exemple benn artiste bu mag supposons mu nekk États-Unis bu ma wax benn Kendrick Lamar mën il n'y a pas de souci parce que droit d'auteur par exemple en France en moyenne par exemple boo jëlee benn artiste bu comme Karine ou bu tu peux percevoir ah jusqu'à 80 000 euros en droit d'auteur waaw bon Sénégal bon droit d'auteur yi bon mais les ban conseil nga jox booy xam ne ñu ngi tëgg ils s'en sortent pas et tout ça bon man man ce que je conseille moi, au début mën nga maye biir pour te faire un nom ça je suis parfaitement d'accord bon parce que ay métro bu muy ak ñom ñëpp au début non nan def c'est-à-dire dañuy mayé biir wala affaire yooyu noonu pour artiste yi di poser mais man mais man lu nga xamanteni trouver je trouve que c'est pas intéressant moy continuer di mayé biir juste pour être célèbre et tu n'en tu n'encaisses rien derrière je trouve pas ça ah man de personnellement intéressé wu. Euh, aussi y a des gens il y a des beatmakers xam dañuy affilié ak ben artiste. Mm-hmm. nekk beatmaker quoi attitré. waaw am liggéey comme par exemple Karabalik ak Dip. waaw genre après buñ amé business ci biir genre ils s'en sortent quoi loolu tamit benn technique là genre ngeen xool artiste ngeen liggéey ensemble ngeen grandir ensemble. et tout loolu loolu fait même les américains yooyu fait dañ koy def. mooy même sax boo xoolee carbala sax entre guillemets loolu loolu loolu lañ xaw a def quoi. parce que au fait c' est le maker parce que maker à force de travail avec l'artiste da koy créer au fait univers musical mun naa wax ni comme par exemple. d' ici quelques années waaw d' ici quelques années. wala d' ici un an deux ans ak noonu normalement carbala dina am benn type de son. mais type de son au fait man maa koy liggéey mooy man maay def de telle sorte que par rapport ak voix wu Karbala par rapport ak thème yu muy woy par rapport leneen support musical bu muy àndal donc voilà c' est ça qui permet que moom couleur quoi discrimination taal waxtaan nañ ci. Hmm. ma ne ko Sénégal doo gis artiste bu am taille bu genre doo gis par exemple benn Kid J bu même même maa ngi moom kii nañ ci mais man lu ma ko tontu rek. la raison genre loolu dafa am quoi. mais mais tamit bu nekk da nga war a am. mais loolu c' est pas le problème des mais beatmakers de. Hmm. pour man bon parce que si taal lu mu waxee tamit man pour moi c' est à dire parce que fii les rappeurs sont des types rappeurs ah il y a wax type bi ak mais c'est des type propres. par exemple quelqu'un vient. il vient pour dire que le nit beat classique le mën a dóor. waaw pas le le type bu bit nit nit dof quoi en tant que tel. am na type beat am na type bit dans la mesure où. quand c'est classique on peut rallier ça au fait. Euh, de... Nitdoff comme Travis Scott par exemple. am na beat boo ko pëlee léegi mën na li les type bu beatu Travis Scott. waaw jabu jabu au fait jabu Travis Scott lool quoi. Wow. c'est-à-dire artiste même si le type bi di même dans l'histoire même du beatmaker, du mu créé mm. Les fait gars yi vous publier des publier par exemple sur YouTube par exemple juste par exemple je me programme sans même penser à un artiste après je par exemple direct mais direct au fait direct type type mais quand je direct direct type c'est juste pour algorithme YouTube pour ah visibilité en fait time beat noonu la ñëwee ci côté beatmaking yi yooyu noonu. mais Sénégal tant que tamit les rappeurs c'est-à-dire c'est les rappeurs moo war a pour man rappeurs yi ñoo des pour time beat pour time beat rappeurs yi am mooy lan. fii la plupart des rappeurs même sooy programmé man dal na ma une fois da ngay programmé nit par exemple benn artiste yu mooy comme artiste yu mag yi entre guillemets nga def ci benn affaire bi nga xam c'est très créatif wala affaire yi noonu ma des sama zone de

Euh, tuto waaw ah, ay tutoriel pour woné nuy jang nuy défé beat nuy mixer son tout ce qui est bon phonographie audio yooyu non amna tamit moy les clips de Kharkhol tout ce qui concerne le label. mais ku dugg si si chaîne est ce que dina nga mën a tëgg beat après avoir regardé yane vidéo mais Sénégal bëri na beatmaking yu ñuy wax fi nga xam ne ni bon ñom ñep il m'ont dit clairement que j'ai appris le beat par le voilà de toi quoi affaire yooyu noonu seen chaîne beeg yooyu mais yo créé woon benn effet genre effet tamal bi. Euh, moi marimba prime en fait c'est Primus Primus moo ko après bon c'est là ma jox pour ma pour me tester ak yooyu noonu j'ai jamais beaucoup aimé mais maa ngi ça sax war def en fait ben VC ni nga ni bon je vais pas spoiler xaw ça saa affaire yi ah, parce que damay bañ gars yi jël tam idée bi waaw yóbbu idée bi mais war nañ def ben VC mais ci euh, hmm. film bob non mooy hmm. Wakanda nu mu tudd Black Panther Black Panther hmm tubaab bi ñëw nañ ba jël suñu tama yi quoi boole ko ci seen sampling yi. mais quand je te parle de nous ont volé quoi pillé nañ suñuy ressources. non non non c'est parce que ñun. mais il a fallu que benn tour bi xaw ma samp Assane Ndiaye xaw ma lan. Assane Ndiaye daal dafa ñëw tëgg sax dafa ñëw tëgg. dafa ñëw tëgg carrément def seen machine. waaw taraj taraj dugal ko ci seen sampling yi. dafa ñëw tëgg carrément c'est-à-dire ñun xam maa lay wax sànq comme par exemple am na artiste yi nga xam des fois da ngay kii nga def ci comme tama comme genre idée boobu noonu. waaw mais il, il te revit ça, il te dit non, boy, les mots qui n'ont pas de clash. ça Il se soucie au fait de ces genres de choses. Quoi. Les gars, en tant que beatmaker, au fait, tu te sens coincé. Moi, yo, yo, ça va, c'est expression artistique, donc, comme on dit, parce que, parce que moi, il calculé. L'année, l'année, l'année, fait une quoi. Donc, pour moi, le problème, c'est là, quoi. Les gars, Américains, ils vont gagner populariser après, c'est une idée où ils acceptent. C'est assez dommage. Parce que vous faites que nous, nous, démarrer.

ñun yàgg nañu. j'étais présent. ok léegi ngeen joué dina ma neex. waaw maa ngi dugg ci ay mbóote maa ci dossier yi nag waaye soog a équation <laughs> tu vois léegi ngeen géem son bi maa ngi woon ci coulisse ci tribune nii grand théâtre un certain public a hué quoi. parce que son bi y une sonorité xam nga. très dansant bala jékki-jékki mooy sentir benn kii ma yi ils ont pas compris wala lan la genre. parce que ñoom ils hmm. s'attendaient xam nga képp kuy yëg wajaa wajaa ci mic bi. dëgg la rek. léegi quelques années plus tard. ñëpp le temps vous a donné raison. ñëpp Pour ngi def li ngeen def. mais bon Giro même je me rappelle même Simon Simon Simon ci coulisses yi. mais dafa ñëw nuyoo ñu ñaari même su ma jugul Black Diamond ñu di mais yéen. mais yow vous avez été extraordinaire mais juste que c'est affecté na n'est-ce pas du coup bu ngeen ko defee. affecté nañu comme. genre le gars public la ñu doon UE, truc du genre. bien que je non non c'est-à-dire comme am na benn partie bu hué. bon ça à dire rap ci nekkee je pense que bon tu dois savoir que tamit euh, tu peux pas bon mënoo risque bah, c'était risqué au fait on le savait d'avance. on savait d'avance que c'était risqué donc on a joué waaw moom la mujjee joué à dire c' était prévu quoi mais xalaatuñu woon tamit peut être réaction bi dina yegg à ce point donc bon quand ça s'est passé après yu bon parce que képp su alpha dina la affecté affecté moi après l'anglais nga bon L'anglais wala nga si mais après on a continué à faire ces genre de choses hein, bon. donc mën nañu wax ñenn précurseurs après Fata El Presidente <laughs> a quoi risqué quoi gis nga nag moom ko njëkk a même def na fi featuring Wally Seck. mais même c'est naa sax ay émissions même seetaan naa ay émissions des beatmakers yi nga xam ni bon ils ils réclament des paternités au fait sur des choses yi nga xamante ni wala des mais yi nga xam ne ni man jik xam xool wala man personnellement quand je l'ai fait nii ça fait des années. mais bon xam nga Sénégal xam nga ma maa lay wax le Thiès dañoo problème médiatisation donc après beatmaker yi dañuy toog ni non maa créé lii wala maa ko njëkk a def je dis ok. <laughs> bon voilà quoi waaw xam lu xam am na sa temps yi dal na benn biir mais bon def na loolu man ma gisaare sama téléphone ay ndigal kam bi ku nekk di ma woo mi ne ma mais attends yow interview telle affaire yooyu noonu essayé ko duggul dugg YouTube nga seetaan lu mu wax fii affaire yooyu noonu voilà quoi ça arrive pour te dire que ni bon c'est assez bizarre quand même bon mais bon kon Fatick topp maa

loolu même sans même même pas musique hein c'est. c'est le domaine si nit la quoi bah, nit nit. parce que dañ naan quand tu perds comme supposons ma perte 100 francs mo gëna metti que ma gagner ça à dire su ma gagné 100 francs bonheur même supposons buñ ko doon calculer ñu né 5 la su ma gagné 100 francs su ma pertee 100 francs par exemple qui bu may am par exemple mooy 10 la ça à dire perdre. psychologiquement en fait l'être humain perdre en fait moo gën metti que que gagner quelque chose motax tax nit ñi ils ont peur du genre mooy li ñu doon def fait ils vont le laisser en fait ils vont. ils vont continuer comme ça quoi. waaw waaw Ça à dire loolu en fait kii la quoi mais tamit musique moi il faut savoir une chose art ku bëgg a ku bëgg révolutionner art moom muy xam nga sax maa wax guitare et Jimi Hendrix ay Beatles ay affaire il faut que nga oser def gars même Bob Marley wala feneen non ça dire soo bëggee en fait nek, comme comme ñu cité la ñu ne la yow yaay précurseur tant telle musique wala tel type de musique au fait c'est parce que tu as osé en fait li nga xamante sa gars yi ko même boo xoolee côté écriture sa noonu la am na gars yi mooy xaw ma je connais pas trop les courants affaire yu noonu parce que du ma xawma xaw ma parnasien ñeneen ak ñeneen bon son peut être mën na ma jàppale ci loolu affaire yooyu genre yooyu quoi ñee dañuy bind par exemple ni ñom forme d'écriture bi boo xam ne nii la wa benen courant ñëw ñu ñom ñoom ñu ñom ñoom ñoom ñu ne ñoom bindeewuñu nii ñoom nii lañ xalaatee nii lañuy bindee musique tamit noonu la mais au début ça ça va être difficile que les gens l'acceptent mais

waaw les années passent quoi vraiment waaw. c'est vrai. léegi bon Rap Thiès. Mm, mm. Rap Thiès. gars ñu ngi leen di picc ba léegi. xam nga gars yi ñoom ñoom clash xam nga xam nga nan de. <laughs> yéen mosul am histoire clash am na jot nañ fi am jot mm. ñu ko ñu ko ñu ko clash saa ñun ñu ngi ñoo regretté en fait saa yi. après dal ngeen seen kaw. bu baax saa ñun moom bon man man moom personnellement moom dootul des dootul nekk saa yi cadre hip hop ak yooyu affaire yooyu saa yi. waaw saa yi tu vas le regretter kay vas le tu vas le regretter. bon peut-être les bon. non les grands. grand bon léegi ay grand quoi affaire yooyu quoi moo mais bon mais jamono jooju. ça restait dans l'esprit des gens quoi ça arrive. mais jox ma anecdote yi man xam naa xaw naa fi xaw naa affaire bon am na ñun ñunu classe yi nga xamante ni déjà on les a bastonné tellement bastonné que waaw man mënu ma dugal. kii jee jox jox ma ñëwal ñëwal man mi dugal kum à la foulée ñëwal. kenn jee ah waaw rappeur. ak moom lañ doon wax sànq muy waajal ay business. <laughs> waaw waaw xam la ko baax. borom sa EP bi. EP bi ngeen doon xit yëpp la waaw clash yi Thiès genre game bi quoi genre am na concurrence bu fi am. bon su biir Thiès waaw am na ko. baax na. <laughs> ok am na waaw. waaw am na. mais baston bu ñu wax nii ban jamono la man boobu mosuma ko dégg. bon avant ñu takk jabar la nag. <laughs> Ah, waaw yëpp ay responsable di takk jabar la xam mais même jour aaru mbedd aaru mbedd mooy bu muy ñëw fii. Hmm. jour boo tax moo astafurla boobu fekk na. amoon na raag bu métti. waaw yéen ak public. waaw bah, non non non ñun mosuñu rek raag public. Bah. ñu xeex ak public bi quoi. waaw benn aaru mbedd show boobu ah, tamit. man man personnellement. gars yi ba euh, xam sax su ma. ma wax sama ma wax sama sama sama position si clash quoi. Hmm.

mooy gars yi boo jaaxee faay rek bu fekkee dañuy def dañuy lay kii nu ñu koy waxee. da def yoonu tool mooy yow nañuy clash bon chaque jour quoi affaire yi ba ñu commencé kii woog yooyu noonu donc on les a tout de suite remis à la femme mooy saare un mooy dañu dina la clash côté yi boobu te boobu cest à yi nga xamante ni moom doo ñemee sax nit ñi déglu dégg donc voilà ça sera tellement sale que mooy loolu te bu nu dajee tamit. c'est-à-dire on va continuer la clash. c'est-à-dire on va continuer le ah truc. day weesu cadre man day weesu cadre musique forcément man man personnellement day weesu cadre musique man mënoo toog sa ginnaaw micro nga wax lu ngay wax après bu ñu taxawee si mbedd bi nga bëgg nekk ngeen cool mënu nekk ah, mënu nekk man bu ma taxawee si ginnaaw micro ma wax ma wax benn gaynde saaga ko ndey bu ñu tasee si mbedd bi maa si njëkk saaga tey avant muy avant muy xàmme dam koy saaga mu leer nañu quoi que que que dañoo jote dëggantaan. mais je fais pas semblant quoi. faut ah. pas faire semblant Arrêtez yu bëri dañuy def semblant arrêtez de faire semblant boo jotee nit. <laughs> mais man eh, amal et eh, les couilles de dire ne que. kii neexuma. est-ce qu'on comprend nga mais pas de jouer des rôles c'est pas ça le rap soxlawuñu loolu. soxlawuñu loolu le le le truc c'est d'être authentique a yow dëggantaan donc boo jotee nit.

rap Thiès moom waxatuñ ko ties mom bon ñëpp ñuy rap quoi qu'on puisse dire entre guillemets bon voilà. quoi boo wax Thiès moom. waaw c'est-à-dire c'est gens yi nga qui le reconnaissent ou qui le reconnaissent pas bon c'est des gens qui ont été influencés par Xarxol il y a beaucoup l'ol mom l'ol mom c'est sûr ça dire le rap le rap de Xarxol est très authentique c'est-à-dire quand je parle d'authenticité moi qui lui wax léegi man par exemple su ma taxawee ci ginaaw micro je le dis que suñu ndajee je te pète la gueule. ah ouais bu ndajee je te pète la gueule. non c'est-à-dire c'est-à-dire au fait du moi, moi, man man. man du ma ni clash laay nekk sax dama naan ci c'est pas affaire yu ah, waaw c'est que c'est xam nga xam nga xam nga le am na noo koy defee avec respect bon avec respect yooyu noonu c'est-à-dire mën na rester cadre hip hop affaire yooyu mais tamit am na leen benn affaire am na fi am boo fa yeggee mooy lu olof naan sooy dóor nit mooy yow xam nga nit sa dóor nu mu toll waaye bul xam fayoom nu mu nu muy toll c'est-à-dire wax ju loolu c'est aussi su may fayu ah, waaw man su may fayu nit bu defee son saaga sa day waaw soo ko mën a delloo ba leen tasee nga régler ses ngay régler ses compte moo tax moo tax xarxool bon je trouve pas que bon bon je pense pas que gars yi sànni en plus tamit xarxool ak jamono ju ñu toll nii bon soo leen sànni picc tamit nekk biir Thiès bon c'est un peu tamit bon mun naa wax sa déni c'est dénigrer tes tes grands frères quoi affaire yooyu noonu quoi parce que ñun même bu nekkee ñun ñëpp sax pratiquement même génération parce que xarxool mooy lu ma la sànni Thiès amoon na break ak yooyu même bu nekkee même génération fii xarxool xarxool au fait on a inspiré tous les rappeurs on a inspiré au fait le modèle même économique des labels qui nga xam ne ñoo Thiès même ba hors hors hors de Thiès y a beaucoup de labels yi nga xam c'est le même structure ko xat xool ñuy donc voilà quoi c'est que au mënoo am gars non, noonu ñu nekk say kii nga inspiré créer quoi. mais mais yàlla mais yàlla ak xat xool moo tax tey ngay dégg ngay dégg Thiès si bi bon je parle même pas ça que quatre xool comme benen rappeur quoi même yeneen rappeur yi yooyu c'est parce que quatre xool a existé xat-xol moo xàll yoon bi moo wane ni Thiès c'était possible moo wane ni l'aspect business au fait de créer un label yooyu yëpp c'était possible après bon léegi xat léegi Thiès Thiès y a y a plus de six ah, ou je sais pas quoi yenn label ak yooyu mais ñoom ñëpp c'est le même modèle que xar xol léegi est-ce que Boss est prêt à signer de nouveaux jeunes euh, ñu ngi gis yaa ngi def ay saafo am solo. ñu ñu ngi waaj ñu ngi waaj parce que am na ay jeunes yu ñu ciblé am na ay jeunes yu ñu ciblé déjà euh, parce que xam nga xat-xool naan la bon ñun groupe beeg yooyu noonu en plus que tamit bon on veut vraiment renouveler beaucoup de choses ak yooyu noonu bon benn instant nag on était très. réticent waaw réticent parce que xam nga bon rappeurs yi des fois bon après du ma ni dan lay bonloo mais bon après ñoom ñooy tax tamit dootoo sawar des fois ci def affaire yenn affaire yooyu parce que ils respectent pas trop contrat yi dañuy lié ay affaire yooyu noonu quoi des fois mën na bañ a sax nekk des contrats yi mais des contrats moral moral yi nga xamante ni bon moral xamu mënoo. na job ak yow di job ak ñeneen mais cest fait ils ont la grosse tête un peu facile quoi quoi il est indispensable quand tu penses que tu es indispensable après c'est grâce à toi après c'est là que tu comprends que voilà tu t'es vraiment fait avoir quoi quoi donc loolu taxul ci mais mais récemment moom je sais que incha allah bu ñu jógee ci projet Karbala avec yow y aura des jeunes en fait incha loolu moom voilà. donc parmi ces artistes ki jiyee ngi nii. waaw Black ngi derrière la caméra. Mm. am na Dimelo. waaw Dimelo mm. waa fekkente wuñu fi. c'est vrai. Mm. yaa yaa euh, ak Aden. Aden tamit artiste la affaire yooyu noonu. soxna si quoi. soxna ah. ok donc euh, projet yi ki jéeg ne dina dina ñëw. waaw incha allah ñu ngi dina ñëw ñu ngi si liggéey waaw ok boss dafa gaaw sax. waaw sa Karbala daal mooy moo nekk. moo nekk gum nii kii bi quoi moo nekk gum nii. mais Jean est prêt album mënuñu ko amee mixtape en parallèle affaire yi. bu xam xol ak yooyu. waaw ça pas tout est possible tout est possible. lépp mën na nekk da nag quoi. lépp mën na nekk da man dama la koy wax da ah non mais nag mais nag kii il faut comprendre une chose am xat xol lu ñuy def. Ah. c'est tellement instant des fois day kii euh, dañuy wax naan day instant day day mel comme si dafa instant parce que parce que bon xam nga ñun studio nu nekkee nii moom ci kër gi na nekk au kër gi moom studio c'est-à-dire on a suñu neexoon mën nañ génn subalu très sincèrement en toute franchise jusque bon ñu dañuy job dañuy job légui léegi mën nañ xëy suba on voit que ni par exemple date tel wala kii tel bon on peut sortir un projet affaire yu non quoi après ñu nekk ci même bu ñuy réactualiser yenn son yi après on réactualise quoi. y des conteneurs de son ci biir waaw machine bi moom jaam en pagay en pagay yaa yaa na wóob popo. est ce que temps bi tamit du tax genre son bi du nekk d' d'actualité quoi. bon ñun nag on a eu la chance de savoir anticiper en fait. waaw ça à musicalement. Hmm, xam na Bon, d'ailleurs, ça pour moi, c'est ça qui crée l'incompréhension des fois de. Même. même mais bon, il y a tout le monde. C'est important. Bon, ça dit, ça arrive nous. Bon, yàlla may na même même des fois on euh, am naa animateurs yu wax vous êtes des fois trop en avance D'ailleurs selon nous, nous la noonu xasee loo xee kenn tu deviens un incompris. tu deviens un incompris mais après quelques années plus tard tout le monde fait pareil après bon gars accepte accepté nous quoi. par rapport à Galsen Hip Hop

bon j'ai j'ai rien contre non non non waay di amu amuñu problème bon amoon nañ problème mais bon. non il faut t'exprimer fii équation de maths boo amé waay di lu la metti man grand bi dañu waxtaan. voilà mais bon mais bon waaye di léegi lii tegoo ko ci yoon. non comme c'était bon y a ça y a beaucoup de choses qui me plaisent pas bon si gars c'est di propose quoi mais mais peut-être c'est des choses xam man moom man personnellement peut-être bon j'ai grandi entre temps mais il y a des choses en privé mm-hmm. dinaa ko wax ni ko.

impact bu mu am sur si première édition yi bon bokkatul quoi parce que c'est plus compétitif c'est plus compétitif moy ñu bari en fait ñu donc day wañi valeur u affaire bi quoi te pour man au fait erreur bi c'est c'est dû un peu à lui quoi c'est dû un peu ça à manque de communication bu muy def parce que mom des fois bon dina génn télé tout ça mais il communique vraiment bon on a reçu au fait euh, même dernier bi quoi on a reçu bële ne passé mais récemment non non récemment récemment non non bon en plus tamit Galsen Oz ni ñu koy defee tamit bon man je comprends tout à fait normal que tamit xat xool jotul carton d'invitation dernièrement bon je je comprends tout à fait ça. parce que ñun produit ou bien non du question bon produit moom déjà waaw déjà y a pas de produit à nominer euh, mais xat xool xamu ñun moom mooy loolu keroog lu Pape Sidi Fall di wax mooy ñun saa yi duñu booy kenn saa yi duñu booy kenn mën na nekk ay gars yi affaire yooyu noonu mais duñu duñu ko fait duñu forcer connexion au fait ça duñ fa parce que parce que Sénégal fii malheureusement même waaw même le hip hop ça se passe comme ça moi même booy déglu interview ça sax da ngay gis benn même rapport yu mag yi affaire yooyu noonu ñu ñuy wax entre guillemets da ngay seetlu bu ñu bu ñu leen ban rapport mo toj automatiquement boo xolé su cité rek mooy mooy ñi nga xamante ne la bokkal koñ wala ñom ñuy kii c'est pas honnête quoi au fait donc donc te man man bon man bu ma dugg ci lool quoi en plus tamit ñun gëm nañ ni bon ñun lu liggéey moo en plus comme itamit yalla may nañu ba ni tamit on fait nos business wax deug yalla mom du ni gagné nañ ci ay milliards affaire yooyu non mais on s'en sort très bien. c'est-à-dire voilà. est-ce que yéen am ngeen link ak yenen euh, rappeur yi nekk par exemple Dakar yeneen gars yi. waaw effectivement même même bon par exemple man beatmaker Sénégal yëpp bon à l'exception à l'exception de fi nga xamante ni moom gëj ko dégg parce que bon j'ai trouvé qu'il est que bon il est imbu de sa personne donc man moom personne c'est-à-dire sur le plan personnel quoi yéen non non non non loolu de loolu mais wax euh, quoi. à man fait parce que bon man peut être mais. après mais après daal mais soufflé. <laughs> <laughs> mais moi après dama dama kii quoi parce que bon man bëgguma non, une personne qui qui non, la personne. waaw waaw waaw tamit voilà quand on est invité man man j'aime pas quoi sincèrement sinon à part ça bon. mais biir léegi Sénégal yëpp pratiquement ñu ngi yaay d'ailleurs sax am na benn groupe bi nga xam te pratiquement y'a quasiment tous les beatmakers sénégalais bon Wizia d'ailleurs je fais un big up ci moom moo ko créé bon ñun ñëpp pratiquement ñu ngi ci ah ñu ñëpp pratiquement donc di déggante ci listen to bi bu amoon euh, bu amoon fële Almadi xaw waaw waaw foofu bokk ah, moom parce que en tout cas ça ça m'avait beaucoup marqué très sincèrement yow yow waaye la plupart xamante nañ ah. la plupart xamante mais même si que duñu déggante tout le temps tout le temps tout le temps parce que ku nekk mu ngi liggéeyante ay business am la vie continue quoi la vie ne se résume pas à ce que si hip hop bi quoi ku nekk day dox soxla am ku nekk day def ay business am mais bon la plupart c'est que nañ jàmm xamante nañ. jot nga am ay collaboration ak Papa Zoukane du waaye mais ah bah, am na son yoo xam ne mosuñu génn. waaw ah, am na son yoo xam ne mosuñu génn. waaw am na boo mos a dégg. non mujjul woon génn. mujjul woon génn mais. àll bi bëri ay tomb son yu dina am son yu bëri. <laughs> Kechi tamit da nga doon doon ay son yu bëri. Kechi on se connaît depuis. assez longtemps. Euh, Kechi signé la Buzz Lapin. effectivement on se connaît assez longtemps. ñoom basse on se connaît assez longtemps ñu bëri on se connaît assez longtemps xam nga mais voilà.

les gens sont là da ngay gis ñoo xam ne dañoo bokk groupe. loolu yàgg naa wax ñoo bokk groupe. mais nag même groupe. kii ne am nga kiñ kee na ko maay kiñ. mais kiñ yee ba léegi rabandoo man tamit man man dama jàpp ne maa ko daax rab moom tamit xam je sais que moom dafa jàpp moom daax rab ah. voilà quoi mais ñiy déglu xam ko c'est que <laughs> mu man man man comme am na ay groupe de rap yoo xam ne dafay am ñoo xam ne ñoo. je les préfère à, aux, autres. Mm. est Mais ça, ça n'enlève en rien que quelqu'un qui se groupe bi rap mais Qui gënal man déglu ki moma gënal déglu groupe qui wax le groupe yëpp qui am un faible quoi si on peut dire wala ko xam non groupe qui est am groupe fort. non pas faible mais groupe fort je dirais. mais mais mais attends tu dis Wati groupe qui Gims moi je dis est le femme.

mooy quand la personne peut s'identifier à l'artiste artiste. c'est-à-dire yow même boo seetloo sax yow yow tout naturellement sa artistes yi ngay bëgg le plus souvent tu peux s'identifier à eux soit leur manière de penser wala leur manière au fait de même gesticuler des fois leur manière de s'habiller wala affaire yooyu des fois mën na bañ nek nekk sa musique musique bi kessé de. waaw ah, da ngay bëgg nit avant mom lu muy def quoi. waaw ça à dire waaw ça à dire artiste pour nga nek fanam quoi ça à dire mën nga ko mën nga ko bëgg par le biais de sa musique mais li nga xamante ne mooy tax nga doon fan fan sa affaire yooyu c'est parce que tu puisses mën nga identifier wu comparant bu dee jigéen la suppose ak góor des fois am na lu ñu naan des fois même figure parentale mooy artiste da nga koy xool comme si sa benn. même boo xoolee sax yéen des fois da ngay di dégg expression boobu su ñu naan la papa Wally wala effet yu noonu. effectivement c'est c'est genre c'est-à-dire waaw ça ça c'est normal quoi ça arrive au fait les gens s'identifient au fait aux artistes. aux artistes pour pouvoir même des fois da seetlu sax nit su bëggee artiste sax des fois boo de boo ko xawee seetlu tuuti sax même dans son comportement dañuy gis des fois sax même physiquement sax des fois dañuy xaw a am ay traits donc c' est c' est c' est c' est juste ça quoi léegi un groupe man je peux identifier à celui-là d' autres s'identifient à l'autre mais ça n'enlève pas que ni diw am na talent diw am na talent. ressources yëpp c'est concentré sur euh, le projet que je fais ak Karbala que nous faisons ça laay wax parce que ñun ñëpp parce que y' a Babs mooy record Dieye des fois tamit moom mooy record ñu les idées. man maa maay defar bit fii Rafal day defar vidéo saa yi ñun ñëpp en fait voilà. ñooy def am na sa rôle nga rôle bi nga joué ak yooyu noonu. amoo déjà projet bi dina ànd concert c'est c'est sûr et certain am na yeneen projet am na yenn projet yu ñuy waajal nag mais yooyu il faut que déjà bon ñu valider ko ñun entre nous déjà bon pour pouvoir pour pouvoir le faire. yéen a ngi ciy waxtaan waaw ñu ngi ciy ñu ngi waxtaan ak yooyu loolu. ñun yaakaaruñu dara. <laughs>

bon ku def vraiment ci deux semaines wala ci un mois voilà tu peux donc donc on a la possibilité en fait de sortir de son même si machine déjà il déjà y a des sons dedans am nañ ku vidéo rafet yooyu noonu mais mais xam nga projet day am motif bon day am motif day objectif tamit yi ngi siy visé cest un projet bu gagné bon man en si le si lu ma peut-être moi cest à projet d'expansion lay nek mooy projet bi nga xam ne ñoom ñu ne xat xool toll na tel donc on vise à ce que du tollu tel

même en même temps yi tamit ben benn kii bu fi ñëwoon ak yooyu noonu kooku tamit culture sénégalaise et tout ça moom tamit européen la je lui ai fait écouter au fait euh, des sons mais voilà ça arrive, man moi, comme lu la wax ku déggul sa olof normalement waaw vous y allez lu le def vous dégloo son yi di nga kii kon ce qui veut que c'est même plus côté Sénégal que c'est mais sur le plan africain sur le léegi tout dépendra de la communication parce que nit boo vous ouvrage bu baax tamit pour que par exemple benn sud-africain mën koo déglu wala il faut qu'il y ait une communication derrière bu mën a yegg ci sud-africain wala ci français mais d'accord genre mu génn ngeen def seen conférence de presse fii. ça eh, reste. non non non que limité ko fii temps euh, Thiès quoi. non non non non déjà mënul nekk sax xam nga ngeen télé yi rajo yeeg tout. non déjà déjà sax loolu mënul nekk parce que parce que déjà boobu Karbala déjà il. Euh, publicitaire pourquoi pas lépp xam naa ay moyens la laaj. yooyu yëpp kii nañ ko parce que plan marketing bi affaire yi noonu yooyu yëpp euh, ça été énuméré donc kii boog yooyu noonu mais de toute façon mais mais promouvoir non non c'est sûr et certain moom. ça le public xaar yàlla grand. effectivement effectivement gis gars yi booy tàggee seen mur yi. non même même Sénégal Sénégal, ça, naa wax ni bon en fait les parce que comme par exemple présentement nii mi ngi Vélingara au fait du jeu. waaw ah, day tourné waaw di Vélingara donc c'est un gars qui est déjà assez bien connu oui, bon, sur le sénégalais quoi donc waaw donc n'est que bon le projet ay 4 4 44 carrément <laughs> sérieusement <laughs> ok il a tué le quoi Carvala mais bon malchance moi malchance moi absence absence c'est parce que tu as nga des xam le rap c'est pas seulement au fait euh, malheureusement le rappeur lui-même ça il faut qu'il y ait au fait bon voilà mooy comme leur musique bi bu koy habillé affaire yooyu noonu traitement audio yi tamit affaire yooyu quoi pour man loolu moo loolu la yéex au fait qui yok yooyu mais bu yalla rek taxay may wax mom, Karbala mom. ah bon bu la nexé nak nga bëgg xam Sénégal nag bëri na farfarloo quoi mën nga bëgg diw wala bëgg di mais mais Karbala mom da xorab yombul très sincèrement quoi en toute franchise quoi da xorab yombul même su yow peut-être mosoo fekkee fu ñuy joowee si yow mais soo ñëwoon fekk studio nu muy joobee son yi foofu ngay gën a comprendre ni gars yi moom artisanal ba pare. honnêtement dafa. mais est-ce que tu es au courant que yow yaa indi benn affaire bu bees. genre un producteur de beat ak ben rappeur. ñu mhm. nekk projet quoi mu nekk je tour yéen ok ok mu nekk ci. parce que je dañ koy def métro. Kaane dañ koy def Sénégal. mais Sénégal je crois. am mais format peut parce que ah bon si lu ma parce que Wanda Beat je ma je ak Flash ah, ah. je pense que Mr Maze. Flash ah, Ripper Mr mais mais. mais côté visuel mais problème mooy tamit waaw waaw présence clip ba bon projet yooyu su ma si ma mémoire est bonne en fait les buts exclusivement n'étaient pas composés par le seul beatmaker quoi. waaw waaw mais bii c'est plutôt fait un album de beatmaker et de et de rappeur quoi carrément quoi. bon dina am nag ay invitation beatmaker comme Karbala day invité ay rappeurs comme lui invité rappeur man tamit j'invite au fait voilà. Euh, en tout cas indi nga benn affaire bu. concept quoi. bien que man aussi mm-hmm. rejoindre côté parce que album le 31 décembre. effectivement collaboration avec rappeur. quoi gars <laughs> c'est comme Khalid lu def rek promouvoir gars c'est une bonne très bonne idée très très très bonne idée. timing une semaine c'est vrai c'est vrai projet malheureusement ils sont un peu moy nan les artistes de l'ombre en fait c'est assez dommage ça tendance à changer parce que gars yi waaw mais les mi mi ngi commencé changer quand même parce que nit ñi mais jusque bon artistes derrière ni fait itam bind quoi foog foog foog ñu koy def donc moi ça à nek ben industrie bi nga xamante ni bon di son bu génnee yi nga xamante ni moom gis chaque télé bi 9 bi di waa ji da da ko mayaat te artistes yi des fois ils sont pas très honnêtes yow mënoo def prestation ngay gagner par exemple cachet 400000 600000 mille six cent wala deux wala je sais pas quoi parce que parce que nee na ma réussite son moom wax dëgg yàlla beatmaker am na ci part bu ngand quoi parce que bu amone bit déjà amul rappeur mais mais sans le bit beatmaker on peut pas avoir un hit c'est-à-dire artiste bu mu ay ay si le beat est pourri mais le son est pourri voilà quoi c'est le son est pourri quoi si le beat est pourri le son est pourri loolu c'est voilà waaw. waaw kon yegg nañ si njeexitalu émission bi. temps dama dégg wolof wala cappaandaw non jeexantal nañu. Ah, jeexantal. waaw maa la gën dégg wolof. jaajëf bon mbokki warandoo mbokki derrière la caméra maa ngi hein <laughs> mais ki jël bu amee benn sujet boo xam ne waxuñu ci nga bëgg cee wax ak hmm. par exemple sa conseil ak mot de la fin après ma tëjee boss. ban sujet nañu wax. benn mot benn sujet boo xam ne bëggoon nga ñu communiquer ci te amuñu temps pour wax ci nga rappelé <laughs> xam ne namm nañ la quoi. j'ai pas trop pensé. Hmm. da nga may cangloo de. lii da nga koy ah? yow ba heure bu <laughs> bu dee alxames. ñu ñu ñu jeexal ak boo sax nga ñëw. Ah, jeexal lan. waaw man moom maa ngi ñëpp rek. waaw ñu kontaan affaire baa ngi ñu ngi ñëw après nañ scoop quoi am nañ yow am nga scoop ba pare jël waaw kon 2020 du yomb quoi. balaa nga ñëw ñu gis la. waaw waaw artiste label bi la ñëw tàccuma affaire yooyu bokkoon na ci. waaw ci rappeur. moo mais moo yow mais moo léegi xoolal ki mooy placard. Ah. waaw waaw bii euh, artiste rappeur wu xarxol yenn saa damay gis ñu crédité la mix message mastering. waaw mooy preneur de son preneur de son waaw léegi nuyoo la gars yi après waaw. bon maa ngi nuyu bon mbokk internet yi gars yi suivre man mi vidéo ñëpp ah. di nuyu tamit. Euh, ëpp rab gaal seen bi yaa gën a xam melomaan yeeg rappeurs yi tout le monde ah mooy loolu te di leen wax tamit ñu suivre Mana ah, parce que bon moo ngi def lu nice bon c'est la chaque jour waaw chaque jour maa ngi lay suivre gis naa ni yaa ngi def lu nice quoi yow moom bañ xamante yàgg na te gis naa si évolution tamit la gën a encouragé xam nga di la ñaanal yàlla tamit waaw yaa gën a xamante pourtant nag man entre franchise nag comme ça may naan la bon y a quelque chose que information yi Ibou Galsen du bëri à tax ma yaa tax ma très sincèrement quoi parce que bon xam nga ak ak Diop studio yooyu bon je suis tellement réservé ci studio bi. que des fois du ma xam lu xew ci game et bon waaw c'est-à-dire le fait que je sois abonné au fait ce compte non au fait tu tu me permets au fait voilà. d'être actuel quoi waaw xam comme par exemple quand moi def lii diw def na lii wala diw egg na fii. wala projet bi génn wala affaire yu noonu quoi participer c' eh, waaw waaw ça a l' pourtant organisé na benn concours Gal Sen Challenge. Gal Sen Challenge ah, ah. oui effectivement je suis au courant. y' a beaucoup de boy boy bu gagné mu ngi dëkk fii si. message ñu ngi defal promo ñu ok parce que li ngay def nii bon télé yi wala nga def nii bon. Gal Sen Challenge sama boy bi mu indi ko nga saa noonu nga def ko benn. doom benn problème. ah sa engagement ba lay boy ay engagement rek la. bi flag mu ne da koy may clip option bi da koy may bit les boss pare nga nii devant la caméra waxal ni no MD dinaa la may bit ak prise de voix.

les blagues ah. c'est ces projets ces bon projet bon déjà moi comme les gars on va s'en créer. s'en bi moom du projet Kalgola bi lañ gën focaliser. parce que mon moom est actualité quoi. bon à part ça bon. mun naa wax ni bon naa ngi sama. loolu rek dugal say fii moom comme ni ko gars yi waxee bëri na na son yu bëri fi nekk yoo xam ne bon peut comme ni ko waxee rek dañuy xaar moment opportunité pour génnee ko parce que xar-xool dèjà man dama di que ni toll na benn niveau boo xam ne lépp lu ñu war a dafa war a doon benn affaire boo xam ne beneen beneen beneen niveau lay doon quoi gars yi mën koo seetlu feneen moo tax affaire yi mooy loolu ñu ngi ci job tout temps ñu ngi na solo. wax gars yi nañu xaar. yow si ASC célibataire nga bokk. <laughs> Ah, waaw ASC célibataire nga bokk. waaw waaw endurci en plus. man maa la gën a endurci waaw léegi boss ñu may la le mot de la fin. affaire yooyu. waaw mais bon je présente ah, émission waaw je présente émission émission waaw Bootmaker. non élève de boss. non mais. Lah, le ndax puisque non non lepp si si si mom la commencé ma ñew moma jox effet studio suma ñewé suma changé fenn ko wala mu defal mu ne même bi may rap suma ndax dama commencé ci rappeur instant yi côté rap bi dama def break mais heure bu ma ñewé luma ci boss kanam la magué wala lepp Mais on est ensemble, c'est un grand frère quoi que je remercie beaucoup. Je vous wax ñëpp di ko <laughs> gars en tout cas bon. c'est un plaisir. c'est un plaisir bon man personnellement c'est toujours un plaisir de partager. Voilà quoi. Même si je lance un appel. Bon, tous ceux qui ont un problème, quoi que ce soit, que ça soit making que ça soit son, Bon, d'ailleurs, ça, tout le monde le fait. 50 de messages message bon c'est en posant des questions bon on te benn affaire bu garaaw boss day ñëw muy mixé son wala muy mixé bi mu ne ma kaay toog. <laughs> ne ma hmm. xoolal fii dafa lii damay comprendre ma ne ko mais fii dafa lii te da koy xoolal loolu. xamante ne nii mën naa ni li ma maîtriser si beat making ay 1 pour cent la. mais su ma nekk dafa lii defal lii ba si projet Karbala bu ne benn. Hmm. benn eh, bit bi ñu koy bi ñu koy dóor. c'est vrai mélodie bi maa ne ko ñu kii wax ñu teg kees yi ma ne ko dugalal mélodie bii nii. waaw ah. te da kaa retenir. Hmm. c'est xam nga loolu yombul fii nii Sénégal ne mais bon je trouve que c'est normal quoi c'est normal dans la mesure où bon pour moi parce que je fais pas je fais de la musique pour moi-même avant tout mais je fais de la musique dans l'objectif que ça soit écouté par d'autres donc quand l'autre donne au fait son point de vue euh, voilà, je vais y tenir compte. Donc, si je trouve que nice, voilà, c'est convaincant, donc je ne me retiens pas. Bon, voilà, bah, pour mon conseil, <laughs> Cool, grand. <laughs> après cours mais c'est pour la culture il faut c'est dañuy tëj ak yow après. waaw ah. Kid Dieye ak Black dañu may may freestyle. Hmm. direct xam nga ngeen toog ngeen maye ko quoi xam nga. Ah, loolu mën ah. ma def. waaw ah, mën nga mën nga play voilà ma joxoon beat la ko ma ko xam nga hmm. disponible nga xam nga vraiment amuñu sa fay. léegi de la fin projet bi date yi tout ça. bon instant yi daal euh, normalement si tout se passe bien am na benn clip bu war a génn ak temps yi. Euh, benn clip ak Karbala ak affaire yi noonu bu nu war a génne. bon xam naa ne tam univers bi dina wuteeg euh, univers comme mala bi donc voilà espérons que ça va créer encore une surprise parce que vraiment mooy objectif bi chaque chaque son au fait beaucoup de dégloo rek bon voilà ñu créer une surprise donc mën na wax ne projet bi daal maa ngi wax gars yi ñu xaar ko ak doole sax. deuxième extrait mu ngi deuxième extrême mu ngi album de courant 2020. courant 2020. et en quoi je promets que ni moom vraiment artistiquement c'est-à-dire mooy comme le sax. mën nga ah, far nga mujjee teg moom yéeme na de. waaw mën nga farfarloo na quoi moi il ñi. diw moom a neex wala mais c'est un projet bi xam ne man ñun lu ñuy lu ñuy liggéey boo ko dégloo di nga ni gaayaan bi mën na rab gaayaan bi mën na tëgg bi c'est-à-dire après nag sa goût la ak du sa goût nag après mën nañ ciy discuter. mais c'est-à-dire artistiquement waaw bonne musique waaw ça sera une très bonne musique sax waaw loolu moom ça <laughs> la. donc kontaan nañu ah. merci beaucoup grand waaw. émission bi la woon tout suite place au freestyle mu ngi déplacer caméra